ah xam naa yàlla dina ni pat waaye dina xam lu xew waaw moo tax mag ñi ne ñu fiir la duñu ko nangu mukk waaye daal ku mën nag def la mu man ndax sayidatuna Aïcha moo ko waxoon yonent bi yonent bi def ko ni tàngaay bi metti na désert bi metti na yàlla may na nu nu nu wàññi sunu julli mu ne ko xanaa yow nga wàññi man tayiwuma mu ne ko saraxu yàlla bi nag mu ne ko ah saraxu yàlla de kenn du ci teg baat waaye nee ko tayiwuma waaw mu mel ni kon nag mag ñi daal bu nu yeboo rekk comme àggunu ci seen kattan nu yem ci sunu kattan te bàyyi leen ak seen kattan ñu yóbbaale ñu ndax ñoo xam naka la ñuy defee te Sayid Abdul Qadir al Jaylani ñaanam gu réeg ba mu waxee ni duma génn àdduna te ñaanuma ñi nar a ñëw yàlla yombalal leen ñu jariñoo ndono bi maa ngi cay defi lu ma mën ba mu defee ba àggal wóor na ko ni boromam dina ko tontu baat ba jékki-jékki rek addu ni ko waxal li nga bëgg ñu def ko mu ni pat mu ni ko doo wax li nga bëgg mu ni ko bu ma ko dee waxit de duma la ko wax yow mu ni ko noo ma xàmmee mu ni ko dama déggee nopp sa wax te yàlla su dee wax ak man sama poor yi ñoo koy dégg waxin la ci ni am na lu mag ña xam ñoom rekk a ko xam kon nag bocc àggul nga fab nekk njaboot rek moo gën a noppale nag waaw waaye leneen loo sos rek du sotti leneen loo sos du sotti daa ne ñu sëriñu lawbe ba dafa tuub rek am fukki fan dal di gut xaat taalibe taalibe yi nangu lool ndax ñoo mooma bokkoon dimm dañuy yomba d'accord ñëw rek ni ko yow ëpp nga sëriñ wali yu nga mu ni waa waaw ñu dem ba ca ëllëg sa ñu dellu si ni ko yow daal ëpp nga wëli yu xut bu nga mu ni waaw waaw ñu dem ba ca ëllëg sa ñu ñëw ni ko yow ëpp nga léegi xut bu yonent sa nga mu ni waaw waaw ah ñu dellu si ñëw nag ni ko léegi yooyu yépp passé nga ko mu ni tekk nag waaw ñu ni ko léegi yow yàlla nga mu ni waaw waaw loolu mooy la cay tegu du baax waaw ah loolu mooy la cay tegu du baax waaw nga xam fa nga mën a yem rek maa ngi koy wax benn mbokk taalibe boo xam ni noo bokkoon daara waaye loo ko wax mu contre ko ba faf contre Cheikh El Hadj Malick maara day taali al ko te kat ci kër gi leen ko yare ci kër gi leen ko jàngale ba mu xëy ni dëng dëngaaral waaye xëy rek weddi ñëpp ba jël bagage am dem yoonam boobaak léegi mat na ñaar fukki at ak lëf bërki démb ndekki ñëw na ndakaaru jaar sama kër làmb bunt ba fekk ñu tëj ko mu bind ci benn kayit taf ko fa def ci ni yonent bi mësul tëj buntam ah xale bi ni ma benn góor a ko fi taf de ma dindi ko bu jëkk ma ni ko dina dellu si mu ni ma waaw ma bind taf fa ni ko bu ñëwee na ko jàng ma def te ni ko yonent bi dëkkewul woon fan résidence waaw waaw ah yow nekk ci dëkk boo xam ni boo tëjul sa bun doo xam kuy ñëw ci sa njaboot ah doo xam kuy tëb mara day tali li xew ma ni ko wax ko ni ko rekk moo nu gënoon leew jamono wallaay ah waaye tabarka la mag ñi yem ci ñoom noflaay la waaw noflaay bu rëy a rëy la kon nag tabarkalla def nañu seen warugar bàyyi nañu ak ku leen ameel seen lépp yal nañu yàlla taas ci barkeem te yàlla yi tamit bàyyi ko ci sunu kanam yàlla mottalil ko yéeneem ci njaboot yi tabarkalla e damay faral di wax ni man buntu kër gi ma gënal moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz dafay wax ni buntu kër gee ma gënal ma toog fa ku bëgg a yàq du ma la bàyyi nga dugg si waaye sëriñ mu niiru daf daan wax ni ki toog ci buntu kër gi te léeg-léeg mu jóg lalaat néeg ne am na ku mu bëgg mu am jàmm waaw nun rek la bëgg nu am jàmm waaye boppam taxul fa tabarakallahu nu gise ko noonu jàppe ko noonu gëme ko noonu ñaanal ko yàlla mu ñaanal nu yàlla te nu bañ a tëdd nelaw ndax kat bu nu ñaanalee yàlla ba noppi ku amoon tool war nga ko yokk ndax xaj na ci waaye itam dem tëdd dafay tuumal kilifa baaxul ndax yàlla ku tëdd du ko defal dara lu bàyyi ci xel maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Abdou mii ci seen wàllu fédération bi ma ni ko nu ngeen déggee jamono mu ne xam naa ku doxal diine te développé wuloo réew yàq nga moo tax diine kese kese yàlla mënu ko dégg fal yaabudu rabba hada al bayt alladi ataamahum min juwa wa amanahum min xawf ki ragal jaamu yàllaam du sotti ki xiif jaamu yàllaam du sotti waaw am na ragal goo xam ni nit kee ko yóbbe boppam am na xiif goo xam ni nit kee ko yóbbe boppam ndax at mu metti ma mag ñi dañu ñëw ci Cheikh El Hadj Malick ni ko réew mi dara amu fi mu ne ah xam naa bu fi dara amul day warlul leen ma ma dund ren ba déwén ma warlu leen ni danaa lekk ren ba déwén loolu rekk am solo xamuloo ni xëy xëy wuti dañu ko xewwil waaye dara gënu ko aha xëy wuti dañu ko xewwil waaye dara gënu ko dee boo amul salaire rek tëdd di xaar salaire waaw kon picc tane na la sànq lañ tane la xorondam tane la waaye ñoom bu ñu xëyee rek wuti ndax xam nañ ne xaj nañ ci wërsëgu yàlla waaw xaj nañ ci wërsëgu yàlla waaye kii rusa wuti kay moom dafay tëdd rek tabarkalla ndax rus naa wuti mu mel ni kon nag wax na ci alquran nee na nattu ak crise ne jaam lañu maa leen di yebal ci seen moroomu jaam waaye suñ ñëwee nag ubbil sa néeg ñu dugg fa wante bul ubbi mukk néegu yàlla ñu dugg fa sa néeg nag ubbi ko ñu dugg fa te la jigéen ji seet li defoon suukar si ne ah suukar de manqué na léeg-léeg mu seet la defoon café ne café de manqué na aayul ndax sa néeg la waaye néegu yàlla bu fa crise dugg mukk te mooy sa xol crise bu duggee xol gaañ borom ndax dootul def dara wada Cheikh Haj Malik daan wax ni tubaab yi ñoo nu gën a dégg alquran ñoom ñi nelawatul waaw ñoom ñi nelawatul te géej gu nekk ñu dagg ko tabarkalla tabarkalla ñoo nu gën a dégg alquran ndax alquran yemul ci rek ngàbb sa kurus di sikar ba bërset yemu ca alquran lépp a ngi ci waaw lépp a ngi ci xam naa bu nu ko déggee noonu dinañu mën a dimbali suñu kilifa yi ba tabarakallahu bésu teranga la bésu barke la bésu leer la yal na nu ko jëriñoo président itam yeble na ñi mu yebal tabarkalla mët nañu ndaw wante bi ñuy laata ñëw lépp lu mu daan def ñëw na ndox mi doy na courant bi doy na dund bi doy na bokk yi taxaw pour sécurité jaamu yàlla yi doy na te it sant teraanga mooy mën a tax yàlla barkeel ko kon nag na ngeen ko jottali cantu kilifa gi nu mbokk ndax kii toog a ko jur ci deret jur ko ci diine moom itam fa mu toog doom la ci moom ci deret doom la ci moom ci diine di président boole ci yéen ñi ko jàppale nu jàppale leen ngeen jàppale nu nu bokk jàppale sunu kilifa gi toog ak kilifa yi bokk ak moom ndono loolu rek mooy li nga xam ni moo am solo ndax góor gu dogu góor gu dogu góor gu dogu te ñaawul njort góor gu dogu te ñaawul njort góor gu dogu te lalul lu ñaaw góor gu dog te bëgg lu baax lu ne mën na ko waaw ba tax na nu taxawe noonu rek bu nu sunu kilifa diine sikkul sunu kilifa àdduna sikkunu sikkantewunu àdduna sikkunu nu xaarandi nag aljanna waaw ah nu xaarandi nag aljanna dafa fekk àdduna nag nattu du fi mën a ñàkk waaye leeru yonent bi mooy tax natt bu ñëw nga man ko yenu ndax nit mbaa xam dana àgg ci mu soppi nattu muy teranga waaw léeg-léeg nga si biru ba xaw di toskare fa nga tëdd xale bu tuuti ñëw ni la na nga def nga ni ko maa ngee tane mettit wa soppeeku di teranga waaw moo tax kilifa rek moo am solo dañu wax ni yàlla dafa woo rab yi di leen nattu mënul ñàkk kenn ku ne nattan nattoom ma def ko kay di ni ko man si biiru laa tànn mu ni ko lu tax mu ni ko dafa metti te comme borom doole laa te bëgguma tooñ ci sama doole waxtu wu nekk naa si biiru waaw aha waxtu wu nekk naa si biir moo tax foo ko seen mu ngay ëbb li bët yu xonq coñ waaw mënatul tooñ balaa rëbb xiif waaw ne ñu lëg jot jóg ñu ko mayit jox ma sot mu ne ko lu tax mu ne ko dama mën a yàq tollu jàmbur bu ko defee fu ma nëbbu di yàq rekk tissooli borom mi ma ngoog waaw rekk dàq ma ma génn waaw ndax ma it bëgguma yàq sa liggéey bukki ñëw mu ne ko yow ban feebar nga bëgg mu ne ko xir ñit ñi waaw chet ah mu ne ko wàjjile yow xir nga mu ne ko wàjjile damay borom njaboot waaw moo tax foo ko fekk mu nga xir ñit ñi du xiif mukk ci kaw suuf wallaay wallaay xër ñiit ñi am na ñu ko xamul ci wolof mooy fër waaw ba tax na tabarkalla tabarkalla yàlla mane na boppam mane na jàmmam waaw li ci des nag mooy taxawaay am yitteeg nu ngi gërëm ñépp ci turu kilifa gi ñu ngi gërëm ñépp ci turu njaboot gi ñu ngi gërëm ñëpp ci turu ñi fi daje ku ne war na gërëm sa morom waaw ndax daje teranga la daje teranga la tabarkal la tabarkal la tabarkal la yal nañ ko fi yàgg a def lu ci soxla yal na ko yàlla faj kilifa yi fi ñëw yépp kilifa diine kilifa gouvernement ñoom ñëpp yal na leen yàlla boole jàmmi biir ak jàmmi biti waaw loolu rek mooy li am solo ah li ci des nag ñaari yëf la moo di waaja dañ ko ni cëy sa jabar ji mu ni bu kenn dox sama diggante ak moom jeex na xamuloon ni bu ñu doxul sa digganteeg sa mbokk doxuñu sa digganteeg sa wëllëre moo a tax waaw moo tax mu ni bu kenn rekk dox sama digganteeg moom danaa xam fu muy jaar ba yépp a tax tabarkalla tabarkalla ba moo tax rek loolu yàlla nu ko yàlla defal ci suñuy diggante a su ci amul it gàccaam waaw jaamul gàccaam dinaa di wax ni soo demee ba gis yenn ñaaw ñaaw yi ñu bokk diine di ko defante da ngay defe ni diine ja dafa am échec fekk amul échec xel yaa wëlbatiku waaw xel ya rek moo wëlbatiku nga tax na kon nag yal na yàlla rafetal xel yi ah yal na yàlla yokk muñ yi yal na yàlla may nu itam nuy am kattanu jëf di am bu dee nun baykat yi nu am taw bu dee jaaykat yi ñu am lu ñu jaay bu dee wecckat yi ñu am lu ñu wecci bu dee doxkati yiw yi ñu am yiw wu ñu dox lépp yal na ko yàlla rafetal jàngalekati daara yi yal na yàlla yokk seen leeri daara jàngalekati jikko yi yal na yàlla jox leen kattanu yéwénal jikko yi waaw loolu rek mooy li ci li am solo li ci des nag lu bàyyi ko nag ci loxo yàlla parce que àdduna du nekkaa jënd mukk dañ fi jaar rek kemtalaayu la Seyid Cheikh Ahmed Tijani yi waxoon li am solo li ci des nag lu bàyyi ko nag ci loxo yàlla parce que àdduna du nekkaa jënd mukk dañ fi jaar rek kemtalaayu la Seyid Cheikh Ahmed Tijani yi waxoon nee na ki la ni ci këru nee na ki la ni ci këru doya di nga nekk te boo soloo ñépp yéem ko ki la ni ci këru doya di nga nekk nga tëgg fa wurus takk ko ki la ni ci këru doya di nga nekk nga togg fa maafe lekk ko ki la ni ci këru doya di nga nekk takk fa soxna mu amee la sa kër ki la ni ci këru doya di nga nekk jox la ay xarit boo dee waxtaan ak ñoom doo xam ndax ay am na nee na kooku war nga xam ni boo ko fekkee ca kër gëdul gu doya di nee na am na lu mu mane waaw waaw loolu rek mooy li am solo kon nag nu jàppandi ci lii rek ba ba nu koy fekk ci lële tabarkalla te nun nun ñi ñemewul mu gaaw nag nu ñaan rek yàlla bu mu gaaw waaw fa tabarakallahu loolu la góor gi waxoon ni nu wax leen ko ku ne fas ko te def ko programme nag waxuñu ku nekk jóge fi rek bàyyi ko noonu kese kese waaw ñu sant ñépp nag kilifa diine yépp lu ne indi nañ ko fi lu ne président waa kër mit lu ne indi nañ ko loolu ci barke yonent bi rek la xaj kon nag yàlla na yàgg fa tabarakallahu kilifa yi yàlla na yàlla may leen ñuy boot njaboot yi ba faw njaboot yi yal na yàlla may leen xel mu dal ñuy nangu mbootaay yi ba faw bés boobu rek tabarkal la moo nu fi dajale xam naa ñëpp soj nanu waaye nu it soj nanu tabarkal la tabarkal la aayul nag kenn ku nekk ci yéen jàngal ko